concours bi concours bu métier la sélectif la euh, dañ ko réussir mais dañu def tamit formation ci après formation bi tamit dañuy def examen de sortie euh, il faut nga am moins de 12 pour nga mën a génn ci euh, pour nga mën en tout cas admis ñun ministère de la justice dañoo fier ci école bi parce que école bi depuis ñu créé ko en 2014 ba formé naa à peu près plus de 1200 euh, agents de l'administration pénitentiaire Ce sont quand même c'est des agents professionnels école bi école professionnelle la euh, dañu liggéey liggéey bu baax seen jàngale baax na des ñu koy gis ci ci ci en tout cas euh, agents pénitentiaires yi euh, président de la République nak depuis 2012 bu mu vous mu gis ne euh, prison yi dafa am problème 2014 décidé décider créer école bi euh, pour renforcer personnel parce que xam euh, au niveau international nous considérer pour deux en tout cas pour euh, prisonniers en tout cas il faut au moins un agent pénitentiaire pour deux prisonniers donc nous créer école bi quand même pour dire des formations pour atteindre cet objectif mais le président de la république aussi gis nañ euh, dafa jog ci mbirum euh, prison yi non seulement mu ngi améliorer les conditions de vie des yi parce que bo bo xolé ben exemple rek la len en 2012 euh, je dirais même en 2014 bu ñu bu président ñëwé indemnité journalière d'entretien moy prisonnier c'était à 461 francs tay très triplé parce que y a ko ba femmes euh, euh, francs CFA bo euh, construit nañu ay prison prison ay équipement équipé nañu ay prison yu prison yu par rapport aux agents de l'administration pénitentiaire comme ni mako waxé légui créer créé nañu école di former ay de bons éléments mais tamit dañuy renforcer effectif yi ci prison yi jéem nañu renforcer ses conditions de travail donc vraiment le gouvernement a fait des choses. Et nous continuer parce que le ministère de la justice avons un programme programme de modernisation euh, euh, des infrastructures du ministère de la justice notamment FIBE 2027, euh, en euh, programme de construire neuf établissements pénitentiaires neuf prisons vont amener minimum de 2000 places sur l'ensemble du territoire donc xam naa ne bu programme boobu bu ñu ko paree ak recrutement yi vraiment dañu ñu permettre ñu désengorger prison bi mais am na benn élément tamit nous xam ne dañu def pour jàppale euh, administration pénitentiaire bi brasser bracelet électronique parce que dañu xool ne ñu xam pour désengorger les prisons il faut ñu def bracelet électronique bi parce que euh, day éviter ñu nous ñoo xam ne seen délit yi dafa pour éviter les prison donc dañ leen takkal bracelet électronique pour nous faire une surveillance électronique pour que prison yi tout donc c'est ce comme nous dit, sargal féliciter et puis di souhaiter carrière euh, solo